salaamaaleykum seex bi ñu ngi leen nuyu tur bi la. man maay El Hadj Sarr El Hadj Sarr Sarr dëkk Dionewar quoi. Euh, ku la xool xam ne yàgg nga ak Siteu loolu. Euh, làmb ji ni ñu dégg man fan la leen toll. waaw làmb ji moom euh, na yàlla moom yàgg na yàggul daal ndax dara yàggul combat bi jàpp nañ ko jàppaat ko mu yàqu di ñaan yàlla nag kon jàppaat nañ ko la 6 yàlla nañ ko fekkee jàmm te tal ko yàlla may ñu ndam bu sedd guy waaw mais làmb ji moom jaral nañu moom waaw jaral nañu moom ndax euh, Papa Sow mi nga xam ne moom mag si tax ta nekk xale di bëre ba jot ko yaakaar naa bu jaralee Papa Sow 10 war naa si ta 50 waaw sama wax bu gàtt daal. gis ne si ta saa yu génn lii di wàllu musique am maanaam xar ko xuufaam yow yaa ko koy gérer loolu ndax neex na gérer. waaw non xar fu foo moom wax defal ne yàlla moom bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax rek neexul gérer. Euh, loolu ku xamul làmb mënu kaa def euh, wax nga ko si ta maak moom yàgg nañ trop euh, depuis bu muy nekk xale ba tey jii xam nga mu wóolu ma mu nekk mbokk tamit xam nga mu yëkkati léppam jox ma ko kon loolu wax defe ne la boo koy gérer rek da ko koy defal ni mu ko bëggee hmm. waaw mais xar foofu moom wax defe la moom neexul gérer moom neexul gérer mais ñun moom dañ si yàgg moo tax man mënatuma jaaxal. waaw xar foofu boobu moom man mënatuma jaaxal quoi ndax euh, coono bu ne daj naa ko si waaw. parfois dañ lay wax biteel bi nii nga koy defee nii nga koy defee mosoo jaawale. <laughs> Siteu biteelam. non Siteu mosuma jaawale buteelam defaneelam man sama jàng soriwul quatrième laa yem mais noo ma joxee buteel rek ni nga koy waxee rek ni ma ko mën a liiree rek laa koy bindee waaw ni ma ko mën a liiree rek nga xam ne man nii nga ma ko waxee noonu laa koy bindee waaw. loolu moo tax man am na si sens dëgg dëgg dëgg dëgg te tamit am na yoo xam ne tamit ba def na yàlla boo ma ko joxee rek euh, jaru sama koy bind loolu moom des fois dama koy def ndax euh, dem na fa nga jox ma ko joxaat ma ko mais yi nga xam ne maanaam mosoo ma kaa jox boo ma ko joxee rek dama koy bindee ni ma koy mën a liire ba nga xam ne jour bu jour ba noonu laa koy defee waaw. xar ko fa si mbër mu mel ne Siteu doon lu metti lool doon lu yéeme lool. est-ce que mësuñ na la jàpp ci mystique ba nga xam ne carrément làmb ji dañ laa jàpp jàppaale mbër ma waaw loolu dama siy sawar a wax combat Sa Thiès ak Siteu euh, xam naa ne Siteu jàppuñ ko si gàllaaj ba te fa ne mais man moom jour boobu euh, la fàttaliku ne Siteu ba ma koy dala ngeeb ba tey jii combat Sa Thiès la mos a gis ñu taxaw bay waaj a takk ngembam bi ma koy wutal benn yére boo xam ne dafa waroon a yóbbaale stade may wër yëre bi di wër yëre bi di wër yëre bi avant may ñëw ma fekk ñi taxal si tàngeem ba pare affaire bi jaaxal ma jour boobu am na nay bagage yoo xam ne dem naa ba si yoon bi ma xam ne lii yobale ma ko xaw ma woon lu tax nag defal la mais biñ daanee si da bañ dugg si oto bi après si te dafa ma ne maa ngi leen di gërëm di leen di sant bu baax a a ma ne ko si lan mu ne ma ni ngeen ma taxawoo tey mosuma sentir taxawaay bii. ba euh, defal la euh, jël moo ñëw tey ñu daan ma mais centre ma fenn si benn côté ndax jàpp nañ ma si gàllaaj loolu mu waxoon nag ba defal ne la euh, dama si sawaroon mais man moom xamoon naa ne combat boobu ba defal ne la fàtte woon naa lu bëree bëri loo xam ne mosuma dal waaw si combat boobu mosuma mosuma préparé combat ñu takkal si ta ngemb ba pare te taxaw ma man maay njëkk a taxaw mais jour boobu taxaw naa ba nga xam ne ñu ngi a takk ngemb bi mu ne ma wutal ma sama mayo bi dama kaa a yóbbaale may wóor mayo bi di wóor mayo bi si néeg bi di wóor taataa may ñëw mu fekk ñu taxal si teg jëm ba pare waaw jour boobu daal ba defal ne la fàttaliku naa ne jour boobu man euh, nekkuma woon hmm. waaw jàpp nañu nga ni mbokk nga gis Siteu mu jël conférence de presse yóbbu ko John loolu lan la def si yow te tamit ñuy waxaat ne Siteu ak ki nga xam xamante ni moo di Yékini nijaayam la loolu bëgg nañ si ay leeral bu baax. waaw euh, loolu sax dama si sawaraat a wax li Siteu def noonu indi ko jon waar loolu defe ne la man sawar naa si lool lool lool lool lool lool ndax ba ma gisee ñëw jon waar li gën a maye sens sax dafa tombé match am mais après gars yi ñu bari dañu doon xas di wax ne lii lu tax mënoo leen ko na teel a yëgal ñu arrêté match bi mais comme noonu la ko yàlla dëgalee tamit xama gars yi ñëw nañ jël nañ ko xama kontaan nañu comprendre na euh, ñu si sant yàlla bu baax a baax di ko wax ne noonu la Euh, journaliste yi fekk la ba sa dëkk jël la foofu tamit euh, waa dëkk bi sawar nañ si tamit di profité tamit di nuyu waale waa ili 22 ili yëpp ñu ngi leen di ziare bu baax a baax a baax di leen wax ne tamit gis nañ taxawaay bi ndax gars yi fu ne la ñuy fu ne la gars yi di ñëwee di ñaan xam nga sonn si combat bi bëgg si combat bi xam li leen combat bi jaral ah diggante Siteu ak ki nga xam ne moo di Yékini man sax euh, ba muy ko bi Yékini di ñëw Dionewar di seetaan si làmb foofu loolu man mii boobu xale laa mais mun naa si wax dafa mel ni comme démb la si man euh, dernier làmbam Dionewar dafa mel ni comme démb la si man ba pare Yékini nekkoon ak nijaay tax di ànd ak moom guddi ak bëccëg man mii sama nijaay am na sama nijaay boo xam ne moo ko Yékini xamante nañ bu baax a baax a baax euh, ñu koy wax Lamine Sarr ñu koy wax Kondrama yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko aljana moo ko Yékini bokk nañ génération. Yékini tamit bu mu bëree John Waar ñëw John Waar ndax man damaa yàgg a suivre làmb bu muy ñëwee John Waar dafa bindoon lettre ne maa ngi ñëw pour jël se maa ngi ñëw pour jël luur yi raxam bu ñuy wax insabasul moom mooy jël le yi loolu yaakaar naa bi fi Yékini tegoon ci mukaayam bi ñun ñu ngi woon ci ginnaaw ndax boo jamono yooyu dañu doon defal mbaal ay xale lañu woon quoi léegi fi grand yi di taxawee at ñun fu ñuy taxawee du bokk quoi mais Yékini ci mukaayam ñun si ginnaaw lañ nekkoon loolu fàttaliku naa ko waaw loolu moom wax defe la moom dama si sawar a wax mu nekk si ñun nijaay bu baax a baax a baax boo xam ne euh, booba léegi tamit euh, gis nañ taxawaayam ndax mun noonu na wax ne bàyyi na làmb rek day bàyyi affaire làmb mais ba tey jii tamit wax defe ne la euh, mbaru séeréer buy jóg moom da def jéegoom da siy taxaw taxawaay yu rafet. kon ñu dellusiwaat ci combat bi nga moo diggante ne la moom day yokk yokk day saf-saf. Euh, comme combat bi daa am fu ñu toll ba pare yàgg na euh, ñàkk nañ ci xaalis bu bëree bari fu ne foo yaakaar rek dem nga fa comprendre tamit euh, foo dem tamit joxe fa sax xaalis tey xamal mu la wax la jox da nga koy ko bëggee comprendre butéel yi moom wax la moom bu yokkul du wàññeeku ndax du dara mboole yi ñëw stade xama façon bët bu ne comprendre kon war ngaa mun a aar sa bopp aar sa mbër xama aar ñi nga xam ne sax dañuy dem seetaane comprendre ndax man tamit euh, nekkul ne mbër bi kese laay aar ñi nga xam ne sax dañuy génn fii di seetaan yi dama leen di aaraale ndax euh, genre euh, xama événement yi xama day doy waar quoi hmm. nekkul ne mbër bi kese ngay aar da ngay aar ñëpp comprendre ku nekk mën a dem si jàmm ñëw si jàmm jërëjëf kontaan nañ xam naa di leen ñaanal rek laamu ji ngeen dugg seeg bisimilahi rahmaan rahim génn seeg alhamdulilah tamit di leen ñaanal xama seen télé bi yàlla yóbbu ko ci kanama kanama kanama kanama kanam ndax li ngeen def nii yombul aussi tamit di profité tamit di woowaat suñu bokk séeréer yi o fog ole séeréer ine simna fop o ɓiy nuun o ndokoor nuun o ndeɓ sita a jeg combat le 6 novembre in talala fop a ɓay nu ka o kiina waana o fiyanina sita bo yaale ciin dam fa ɓutu guy xama di sant staff sita bu nekk jonwar di sant staff am bi nekk tableau xaadim xamal mu la di ñaanal ñëpp jàmm di leen ñaanal yàlla defal leen sutura defal leen wér xama li ngeen bëgg si seen liggéey bi yàlla defal leen ko xama barke lépp ndax loo gis rek barke bu si duggee rek xam nga mu la euh, lépp day kawe quoi xam nga lépp day rafet quoi sant naa leen gërëm naa leen jërë ngeen jëf